baal ma tuuti baal ma tuuti yàlla baal ma tuuti yàlla mënut ma xëcc micro demal ndànk ni mu jooy nag tubaarkàlla toog borom xol bu oyof te kii toog di kilifaam may ko soxna soxna soosu yàlla jox ko gone te gone boobu tubaarkàlla mbàkk yi muy yar ko jëwriñ bu mag bi ba tey ñu ne tey ñi nga xam ñu koy may soxna mu jël lépp delloo ko ko loolu rek jar na koy waaye li ma ne ay mbokk neen lañu ki nga xam ne kii mooy baay baay moo jur maaka waaye dañu koo dénk ku baax ku ñaan mësu caam dëgg mu ku ñaan kii tey ñu ñuy ñaanal Ami jur ndeyam bokkam mbokk yi muy ndey ak baay màggal jur leen mbokk mbokk rombul loolu ba pare mu jël cër bi jox ko kan asoo dëgg-dëgg ay sa jaaga Ousseynou Assane Ousseynou Assane jur ko ak suñu yaay kati seet ba tey mbokk jël loolu jëlul mbokk kon ma ne tey dinaa jële tey ay mbokk kese mbokk yi neen tey ñoo fi daje jawri nag jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmm ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa sutura ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmmal dama ne lii nga mel dañ koo tarbiyu ca mag doon ku ci nekk da ngaa ba yàlla jox la bi mu la yàlla yàlla nga jël lépp delloo ko moom Xaadimu ba dégg loo xam ne ni leen tubaarkàlla fii ci képp koo xam ne kile sa képp koo xam ne kile taalibe la képp koo xam ne nii sa am ni jàmm la day ci loolu loolu nag yaa ko liggéey kon boo teewee fii di sàcc di sàcc ci tubaarkàlla fii ci ñaari di sàcc ci Grand Dakar ba mujj tubaarkàlla ngay sàcc ci biir Kébémer ويبتون غير سكبي على النبي يسكتون من سوى أكسي ورن اللي جوخ تربية خدمه من هنا تربية كان جوخ هنا يلا لكم أخي خاني مرسو وإن تسمى أكسا تاليبي أكسا يو أكسا قوي من غير أمره وإن لون ديال قدر نتعلى دمانتا مباك لكن بوك مسالة سين مردك يكسكم متابعين تدمع إيمان دراني كي وحنا ندال بمونك بمونك إيمان مونان تيجي بيقول يالي كلمة تبارك الله مونان تيجي contrat bi ñu ngi lay wax yéen yàlla mën a sax yàlla yàlla sax léegi nag dañuy tàmbali rek tàmbali ci farata gi dox ay sa jaaga kaddu nee ni mooy bëgg a jël kaddu ne Xalifa Ngoone moo toog nii ne Moustapha Ada Ass Mbacké dafa wax ni ne ni ne ñun dañuy ñaan si rek ne bu ñu dalalee ne nu dal ne bu nu dara lu itam ne nee lu dara rek nee loo xam ne daal cër bi ñoo ko moom ne te sax xam naa ne da leen di dalal ne gor yi ne ñoom ak ñoom ne daal du ñu ñaar ne kenn lañu ne ay sa jaadu mi ne comme moo am ne lu bëgg ne ñu koy dagaan ci moom. nee daal nañu nañu nañu koy rek jëm jëm nee nañu tarbi nee daal ba mu mayu nee mooy maître de cérémonie nee moom ak ci bokkam nee ñoom rek dinañu déglu ay sa jàng bisimilah waa wax ni baal mu tuuti nee bu la neexee nee yow yaay jur nee yow yaa nee yaa jur Fatou nee yow bu la neexee nee ñaari côté yëpp da nga koy yóbbu nee bu la neexee nga dem nee nee asalaatu wasalaam ala rasulullah imaam loolu la wax baal ma tuuti baal ma tuuti yàlla baal ma tuuti yàlla mënuma ko jënd pour dama dal baal ma tuuti soo paree ma jóg la lépp dem la gën a la gën a xam nee li bëgg mooy nee dañoo nekk ci nee ñu nekk ci nee daal ñu tàllal ñëpp loxo nee su paree ñu àggal mbooloo lu waay am ñu ko indi lu waay am ñu ko indi ndax du ñu tàbbi ci jumaa ji ba génn dañu xam ne ñu nekk ñaari jël ñoo ñëw ci jumaa ji jëwriñ ci loolu tàmbalee jëwriñ nee na léegi rek yàlla xaaral bisimilah ana Babacar Fall yàgg sa mbooloo ñëw leen ci jumaa ji lu waay na ko joxe Maxtaar ñu laa nuyu Thiam di la ñaanal jàmm waa léegi alaaji Papa Dioum jawrin joxe na tubaarkàlla ñaar fukki junni jërëjëf sëñ Déthié da cee jël médecine Babacar bi su ma la dee. yàlla sama wàll bi yàlla sama wàll bi yàlla sama wàll bi yàlla sama wàll bi. am jërëjëf Fall waaw. Papa Thioune Papa Thioune moom nga jël kàddu ki la jox kàddu gi nag mooy sama mbokk bu baax mi lee nga xam ne ba ñaari bàyyi ko meññ. kii daan ubbi buntu bii kii bii buntu lay ñoom ñaar ñu dem ci fajar wax dama la wax tey de dama ko béy dama ne seen waajur yu baax yi ñoo wutu fii ci jumaa di ko toppatoo di ko toppatoo ba doom yi wuti di ko toppatoo kon boobu bu ñu ko joxee jël mu taxaw ak jumaa ji macha allah mu ànd ak Papa Touré te ku ne xam ne ni baayam meloon fii ci ñaari tali moom itam am na ci jël kon Papa nee kii di wax na xaritam la bokkam nee di ma tamit nee Pape Diouf dafa wax ni nee mi ngi nuyu ñëpp